li sadinatan bi kun lil janna ñu ngi lay nuyu damay mottali tuuti rek ndax li moor wax daanaka doy na dina la ñaanal nag bala maa dem fenn yàlla may la wér guddal saw fan ndax yow ket fierté tarixa bi nga fierté diine ji nga fierté réew mi nga fierté àdduna nga ndax sëriñ tubaa fépp la nekk ci sëriñ tubaay àdduna ci yaay homme de confiance bi yaay porte parole bi kon ñu ñaanal sëriñ Muntaxa yal na ko yàlla yàggal fi ca may ko wér ca képp ku fi mas a toogal sëriñ tubaa yal na la ëpp ab liggéey sur lew fan sëriñ Bas kontaan nañ ci yow képp ku di murit li am fii bërka démb sa xel dal na boo tëddee nelaw ci xam nga ni dama toog ba yàgg ma ni lii diine rek ko man waaye lii diine sëñ Tuubaa rek ko man ca lépp yaay baas ba yaay noyau ba yaay bunt ba kon yal na la yàlla lafal cat ñu ñëwoon tey nag ni mu ko waxe képp kuy secrétaire général d'union régionale képp kuy député ñëw nga secrétaire général d'union régionale bu dakaar Mar Diouf mii nga xam ne am na histoire ak yoon wi ndax magam ju tedd ja jumaa ji ba ñu koy liggéey moo doon entrepreneur ba du Faye secretaire général union régional Fatick ñëw na Ablaye Wilane mii secretaire général Kaffrine secretaire général union régionale Ziguinchor ñëw na Bakary Basset magi parti bi Moustapha jaw mu ngi nii secrétaire général union régional Thiès dama ko jëlal ndax mooy magum yoon wi di maam bu naama sàll kooku kenn du ko présenté fii ci kër Serigne Touba Louga secretaire général bi ñëw na secrétaire général coordination yi ñëw nañ député Mbacké di la ziyaare ci occasion bi ñu am tey ñëw di leen sargal ci màggal gi nga xam ni seen maam Cheikh Ahmadou Bamba moo ko liggéey ba sunu borom fayee ko lii ñu ñëw fi nag tey ci tànku parti socialist daan fi ànd ak suñu mag ak suñu xarit mu jiite woon ñu jiite bu rafet tey ñëw nañu sunuy xol ñëw na mais am na tamit lu ñu manqué mooy Ousmane Tanor waaye nag loolu la yàlla dogal ñu leen koy dénk rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ngeen di ñu ko ko ñaanalal bis bu yàlla sàkk sa diggante ak moom jarul ñu ciy continuer di wax parce que li nga xam ne moom léegi Cheikh Seck wax Mor Anne wax ko ci rek doy na waaye mottali nga yëpp Mbàkke mottali nga ko taxawu nga ko ñaanal nga ko yàlla na la ko yàlla fay tey nag ak délégation bi nga xam ni ñoom la ñu àndal tey ñëw fii te daanaka région Sénégal yëpp boo ko compté li ci manqué warul a bari ndax ñi sori sax du ñu leen di woon jarul ngeen di dikk ñun bu ñu yeggee rek en délégation représenté nañu parti bi yëpp waaye nag Mbàkke bis bii duñu ko fonk duñu ko fonk ndax dafa yàgg bis boo nga xam ne ca Léopold Sédar sengoor mi nga xam ne ci ñu fonde suñu nation ci la bokk mu daan ko doxal bu baax a baax moom ak Cheikh euh, Fadilou Mbacké di ko dowal ak sëriñ yi nga xam ni yépp fekkoon na leen fi Abdou Diouf dikk ànd ko tamit ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké Ousmane Tanor ak moom itam xalif yi mu fi fekk yépp mu dikk ànd ko ak ñoom ba ñu yegg si fii tey kon lii tradition la pour partie socialiste pour ñu dikk di rafetlu bis bi di teewe bis bi di ki seede tamit li nga xam ne moom lañ ci xam li ñu ci xam mooy ku liggéey di nga jariñu dama doon wax léegi ni Masaalikul Jinaan li fa xew semaine yee weesu doy na daraja pour am réew ya nga xam ne tamit moo fa soqikoo ci wàllu jàmm ci wàllu réew mu dal ci wàllu démocratie bu ñuy taxawalaat yaakaar naa ni masaalikul jilaa ji jinaan dinañu koy fàttaliku fii ak ay at at at at ndax la nga xam ne moo fa xew te la fa xew yéen ko sabablu hmm. bu ko sëriñ bi sabablu woon le xalif général yéen itam ngeen jàpp ci taxaw ko dox ko ba loola sotti xëy na du woon deme na mu demee kon ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm lépp luy indi ci jàmm luy indi jàmm ci biir réewu Sénégal rek ku ci taxaw ku ne ñun ñëpp duñoo war a jóg jaamu leen ñun ñëpp du war a jóg sargal leen sant leen ci loolu kon jërëjëf Mbàkke man sama xaw ma nan la sama doom la sama rakk la sama goro la mais defe naa goro bi man moo gën a neex ci man parce que bisu ne mu teral ma ndax doomu Serigne Modou Bousso Dieng ji muy denc ndax doomu Soxna Awa Gadiaga bi muy denc mu xaritoo ak sama doom doyloo ko ba pare ngeen wóolu ko ma di la ci sant bu baax a baax a baax ci loolu man campagne électorale sax léeg-léeg ma di ko woo di ko laaj ay conseil yàlla bi ñu tiim xam na ko ay 6 heures du matin ay trois heures du matin ay 2 heures du matin Mbàkke yàlla na la yàlla fay taxaw nag bi nga taxaw képp koo nga xam ni sa waajur la ku fi nekkoon xalif la nga leen liggéeyal yàlla na la ko yàlla fay kontaan nañu trop tey ki sunu bis bi nga xam ni ñëw nañu ko fii teeru bi nga ñu teeru tamit kontaan nañu ci bu ñu ñibbee bu soobee yàlla lu ñu takku woon démb ak bërki démb parce que ñun liggéey rek moom moo ñu tax a jóg. parti socialiste bi ñu koy créer kenn créer wu ko woon rek pour mu nekk association mbootaay goo nga xam ni nii ne duñ ciy nekk am réew la ñu doon wut pour liggéey réew ma te yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñoo fi jiitu. ci président bu fi jaar rek ca ab ca président Senghor Abdoulaye Abdou Diouf ba ci waat Wade ba ci Macky ku ci nekk am na loo nga xam ne bàyyi nga ko sa empreinte ci biir réew mi te empreinte booba nag vraiment seen seen seen xalifa généraux yi fi jaar yëpp ku ci nekk ñoom itam dafa am loo nga xam ne da ko cee jàppoon kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di feddali suñu kóllëre ak Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi delloo ab nuyoo soxna Aminata Mbengue Ndiaye ak mboolem délégation bi mu àndal ci turu parti socialiste di leen sant bu baax di leen gërëm te bu ma ci tuddee euh, Abdoulaye Wilane nga xam ne nit ku baax la ku am ku am positif di nuyu euh, député Cheikh Seck mi nga xam ne moom itam diggam suñu kilifa gu baax gi Cheikh Sidi Moukhtar ñëpp xam nañ ko di nuyu Mar Diouf di nuyu Mor Anne mi nga xam ne moo leen nekkal ci Touba ak li ko war di nuyu rek maam bu naa ma sàll mi nga xam ne maamam euh, diggam ak Serigne Touba ñëpp xam nañ ko ndax ca xumaag la jébbaloo ci ak mbooloo ñu nga àndal ñëpp moo tax see tudd rek ñëpp mën nañoo tàbbi ci biir. di rafetlu dikk yi bu baax ndax ni ngeen ko baaxoo at mu jot eh, ndax diggante parti socialiste ni nga ko waxee ak yoon bu dafa yàgg ndax Cheikh Mouhamadou Fadil kon ne xam na ne ay ñaaram tàbbi ci biir ak yeneen kilifa yi mu jamonoonteel rawatina ku mel ne suñu Babacar Si ak ñu ko seqaloon ñëpp ci Sénégal waaye Cheikh Mamadou Farid da cee jëfandikoo woon batin ci président Senghor ndax dama koy fàttali rek euh, bi mu ñëwee fii di wut réew mi daam dara moo ko nekk li muy toog boo Cheikh Mamadou Farid dafa def listixaar ndax ñoom ku ñuy àndal rek duñu ànd ak yow ngir seen bopp waaye dañuy ànd ak yow ngir mbooloo bi ak yitte mbooloo bi Cheikh Mamadou Farid wax ne ñaar ñi xëccoo de muy Senghor ak Lamine gi euh, ku ci ñëw boo waxee ci mbirum jumaa ji yow lay àndal du ko Cheikh Mamadou Fadil waxee biñ xëyee Lamine ñëw bu ñu dikkee Cheikh Mamadou Fadil woo dëkk bépp ci sow jumaa ji mu daal di wax lu ko tax a ak la di bëggam mu ne ko Cheikh Mamadou Fadil teral ko ba noppi yëkkati xaalis jox ko ne ko boo demee nga dimbali ko ko mu daal dem ñu teg ca suba sa wala ginnaaw suba sa président Senghor daal di ñëw bi mu dikkee itam mu defaat li mu defoon woo ñëpp ñëw bi mu dikkee mu wan ginnaaw nit ñi Cheikh Modou jox ko kàddu mu wax mu daan ne ko li may wudde bu moo ko amee naa leen jàppale ci seen juma bi mënta noonu wax juma sa bu baax dégg naa Cheikh Modou Fadi ñam sësaloon rek ñu ne woon ci wetam day yëkkati loo xam ne jël na ko de waaw jël na ko daal di yëkkati xaalis jox ko na mu ko defal woon teral ko Senghor ne ko nag sëriñ bi maa la war a jox jàppaleel moo ko ci defaatal moo ko ci liggéey bi kon kóllëre gu yàgg la goo xam ne lu ne dox na seen diggante buñ toogoon di ko nett ndax xam naa ci lu bari ndax ñi ko dund ñoo ma ko nettali kon loolu dox ba ci diggante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 mooy bañ ne suba la Kazu Rajab wala bisu Kazu ci suba sax benn la ci Cerno Kala mu mujj jot téléphone yaakaar naa benn bis la ci teg wéer digg dal ko la ma mujj wax mooy sëriñ bi de mbirum dialogue bi ki jiit réew mi def woote di président Macky Sall mi ngi bëgg ngeen jàpp ci ci seen taxawaay ak seen xalaat rawatina nag yow séntu nañ ci sa yaakaar bu baax ngir njëriñu Sénégal baat boobu la mu jox ci àdduna kon nag man mën naa koo seere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 afdal minna